dajale fii tey mooy euh, valider euh, liggéey yi nga xam ne jotoon nañ ko def euh, ci complex bi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim jëm ci wàllu médecine parce que man ci wàllu woowu laay yëngatu man professeur médecine la donc loolu moo ñu fi dajale woon tey mi ngi nekkoon ci xolaat li nga xam ne mooy tënk njàng mi objectif yi nga xam ne moom mooy maanaam euh, mooy objectif u centre bi maanaam lan lañ lan lañ bëgg ñun ci lii nga xam ne bëgg nañ koo taxawal euh, muy yuñ tënk bokk ci euh, teg barab boo xam ne dana mën a jàngal xale yi dana mën a former ay sénégalais mais ci formation bu mucc ayib ba nga xam ne du ñu am dara lu ñuy ñee koo xam ne formé nañ ko ci euh, daara yi gën a mag ci àdduna bi benn ñaar mooy euh, politique yi nga xam ne ak stratégie yi nga xam ne euh, ci wàllu wér-gi-yaram ñu ngi ko bëgg teg ngir ñëriñu askan wi mu am ñoo xam ne ñoom ñoo ci dimbale état ñoo ciy dimbalee nguur gi ñoo ciy dimbalee ñi nga xam ne en tout cas euh, am nañ ay stratégie yoo xam ne dana jëriñ askan wi euh, ñett mooy fexe ba nga xam ne lépp luy faj ci biir dëkk bi di Touba ñu yéegal ko ci niveau bu gën a kawe benn ci ñi nga xam ne mooy nit ñi nga xam ne ñooy faj nekk ñoo xam ne ñu xarala lañ euh, nekk nombre boo xam ne bu doy la nga xam ne dootuñu jàmbat ay médecins nekk également euh, plateau technique bi nga xam ne moom la ñuy soxla maanaam jumtukaay yi nga xam ne moom lañuy soxla nekk jumtukaay yu mucc ayib yoo xam ne euh, Touba du ñu ñëwee benn dëkk ci wàll woowu euh, mais également fexe ba nga xamee ne étudiants yi dinañ mën di ñëw fii biir Touba jàngalekat yu mag yi di ñëw biir Touba mu nekk barab bu xam-xam boo xam ne ci wàllu santé bu kawe lay doon waaw. suñu yéene mooy def loo xam ne standard international lay nekk waaw loolu mooy suñu yéene. plateforme bi nag loo xamante ne la day permettre nouveau bachelier bu nekk wala ndongo bu dugg ci université bi nga ñëw def sa dépôt en ligne boo ñëwee da ngay bind say information xam critère filière yi fi am xam lépp lu muy nu muy tëddee UFR yeeg filière yi renseigner say say say ak sa information connecté créer compte. boo créé compte nag ñu laaj la say données par rapport ak sa relevé de bac ak yu demee noonu bu ñu la laajee question yooyu noonu yëpp ba nga renseigné lépp li nga xamante ni ajoo na ci sa sa demande nga def dépôt bi léegi nag plateforme boobu benn outil informatique la buy yombalal euh, dépôt yooyu noonu la te ci internet lay daw euh, benn site web la boo xamante ni loolu lay njëriñ bi léegi nag bu amee dipo yi après day am ay critères de sélection yi nga xamante ni ñi nga xamante ni moom nañu war a tënk te nga xamante ni respecté nañu règles yi ak normes yi ñoom nañuy mën a jël ci plateforme bi critères yi mun na nekk ci notes yi mun na nekk ci filière bi maanaam tey jii nii ñi ci liggéey moom ñoom ñoo lay mën a wax ndax euh, am na ñoo xamante ni euh, ñi def UFR maanaam langue ñi nekk ci wàllu langue ak ñi nekk ci wàllu science ak ñi nekk ci médecine kenn ku ci nekk dafa naan pour ku mun a war a dugg ci médecine lii ak lii ak lii nga war a remplir war nga am bac S2 war nga mel nii maanaam ay misaal la rek laay joxe nii waaye ñoom ñooy defar seen critère bopp pour wax ni tey jii il faut nga am bac sangam il faut nga am lii il faut nga am lii il faut nga am lii pour mën a dugg ci euh, institut bii nii wala pour mën a dugg ci formation bii nii. donc critères yi kenn ku ci nekk outil bi nag day permettre nit ki ku war a dugg ci. mathématique wala ku war dugg ci euh, science wala fi nga xamante ni nit ki daal war na fa dugg bu ñëwee day gis ñu wax ko màndarga yi pour nga dugg nii nga war a am léeg léeg lii boo defee sa demande boo déposé nga mën ko déposé. sëñ bi kon ñu ngi lay jéebal ci turu commission yi fi daje yëpp tey ci bis bi euh, liggéey bi nga xam ne moom lañ jot a def te di ci sàkku ngërëmal sëriñ bi jërëjëf. tey nag ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñetti commission daje fi benn bi ñoo yor li ñuy wax lépp lu aju ci wàllu làkk. ak wàllu téere ak wàllu archiviste ak documentaliste ak bibliothécaire mu doon itam institut bu am am am solo ndax ku ne xam na ne Cheikhuna al Xadim radiallahu anhu li mu bind kenn xamul nu mu toll te àddina bépp ko soxla ñëpp ko bokk ñëpp ci war a jëriñu waaye buñ ko bàyyee ci làkk bi mu nekk ni mu war a yaatoo dana des ñu bëgg a tàggat ay ndaw ñoo xam ne danañ mën a jël xam yi di ko leeral di ko di di ko saraa di ko yaatal ba àddina bi yëpp mën cee mën cee jariñu te ku ne xam na ne fi jamono toll aw làkk doonatul li ñuy wax barrière kon ku ne loo bëgg xam-xam boo bëgg xam war nga ko mën a xam moo tax ñu dugal ci nag jàngukaay boo xam ne day tàggat ndaw ñi ci wàllu googu ba noppi itam ëllëg a ak si biir lépp loo xam ne soxla nañ ko ci xam-xam bu ñu bëgg a indi itam ñu mën koo jëlee ca làkk wam nekk indi ko tubaa indi ko ci jàngukaay bii ba ñëpp mën cee jariñ mu doon bu am solo waaye boo xam ne moom itam lu aju ci wàllu xam-xamu kër docteur lañ doon saytu ku ne xam na fii jamono toll gis nga ne ñun ñëpp ku nekk li mu li mu takk ci gémmiñam ku ne xam ne itam li xew ci àdduna bi ñu ñaan suñu borom ci kàttanam moom mi ko fi indi te moom dong moo ko fi mën a jëlee yàlla na ko fi jëlee ci barke bi Cheikh Khadim radiyallahu anhu waaye nag ku ne xam ne ne xam-xamu docteur moom naka jekk dafa baaxoon mëntoon ñàkk waaye daa rawati nag fi mu toll ñoom nag ñu def ci liggéey bu ama ama am solo boo xam ne defe naa ne professeur Sëñ Moussa Badiane leeral na ko boobu ñoom itam seenub liggéey yegg ñu doon ko ñu doon ko ñu indi ko tey ngir war koo jébbal sëriñ bi boobu dañoo jàpp ne ñun ci ñaareelu jéego ba li ñu wax deuxième phase lañ ko xalaatoon waaye nag bi mbas mi xewee ak fi jamono toll moo tax dañ ko jegesil nga xam ne dañoo bokk mu dañoo bëgg mu bokk ci bii njëkk tàmbali moom ci jàngukaay bii nga xam ne ñi ko doon tënk itam ñi ko doon defar itam doon ñoo xam ne ñoom ci ni ma ko waxee ñëpp ay sommité lañ waaye ñoom ci ñi gën a kawe ci wàllu médecine lañ bokk ñoo ko tëralal ñoom itam seenub liggéey yàgg ñu ñëwoon doon ko jëbbal sëñ bi tey jii ñu bëgg ko tàmbali. informaticiens yi ku ne xam na ne léegi àdduna bi lépp ci informatique lay dox ñu bëgg itam université bi doon une université d'excellence boo xam ne fii jamono toll fi xaral la toll foofu lay tàmbalee moom di jéem wut lu mu ci yokk ñoom itam ñu tëraloon ay plateforme yoo xam ne gone gi ku fi dugg ni nga fiy duggee outil gestion bi itam loolu yëpp dañ koy dugal dañ koy informatiser nga xam ne daal dañ koy dañ koy jëfandikoo waaye da dimbale. doxinu liggéey bi waaye day tax itam kenn ku nekk itam lépp loo bëgg xam ci université bi foo mën a nekk ci àdduna bi nga mën koo xam ñoom itam ñu def ci liggéey bu ràññeeku bu am solo mu noppi ñu ñëw tey doon ko jébbal sëriñ bi. fi jamono toll nag ak xataay bi moo tax sëriñ bi jox na ndigal wax ne nañ ko fi teewal nangul ko liggéey boobu bi waaye ñëw jébbal ko ko leeral ko itam ni nga xam ne noon la tëddee bi daataan ñëw rek leeral nañ ko li tax li war a ñëw lépp waaye bu ñu fi jógee itam noonu la delloo li nga xam ne moo fi jógee ñu ñu ñu jottali ko ko kon ñoom ñi nga xam ne ñoo doon def liggéey yi tey jii ak ñi nga xam ne ñoo leen jiitu woon defoon liggéey yu ko jiitu ak ñi topp ci ñoom bëgg a defaat yeneen liggéey ak képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi ak noo ci jàppee ñu ngi ñaan sunu borom fay la ngeen ji fay ci barkeb Cheikhuna al Khadim radiyallahu anhu sëriñ bi nag moom moom ak cantam moom moo sañ a gërëme moo sañ ñaan waaye ñun ay donga lañ yoo xam ne gannaaw dañoo jox ndigal ñu teew fi loolu dañ koy jottali rek ngir ay donga